Bienvenue sur Salam Vision. ngi tudd Makhtar Fall dëgg ci quartier bii ñu naan Sandakus nekk coordonnateur jeunes yi fi na ñun suñu revendication daa am lu ñu metti mooy ko ñun Sandakus zone bi ñu nekk kenn boolewuñu si dara Sandakus a ngi nii doone waay la doone Pikine la sab la majeure partie des ans fii Pikine la ñuy voté man mii di wax ak yow ji de caaro ko laay voté ñun maire bi gisuñu suñu bopp ci moom sa ñun doñoo fal Macky Sall ànd ak moom battre campagne boobu ba léegi kenn lijjantiwuñu moo tax tey ñu ñëw di wax suñu suñu naqar ci quartier bi parce que quartier bi boo gisee euh, insécurité dafay am quartier bi boo xoolee lumière yi dara tàkku fi rigole sax amuñu ko canalisation moo tax tey ñu ñëw tey pour wax ak maire bi suñu maire bi nga xamante ne man moom laa voté muy Modou Gueye biñ ko votelee ba léegi un an un an du du tuuti na wala mag na mais jàppaguñ ci dara fi mu nekk nii ñun dañ fee ne mais gisaguñu dara suñu bopp sa ñun Macky Sall ñoo ko voteel muy suñu président moo duggee ñu teg ko fi battre ko campagne boobu ba léegi gisuñu suñu bopp su dara lu toll ni meeting départemental Pikine di fi am ñun ñun suñu gox ñu ko fi jafee sa yëguñu ñu dara dara yëguñu si dañuy xëy rek gis ay baas gis ay lii moo tax pare nañu tey même ngoon lii point de presse la rek pour yëgal ne que ngoon pare nañu suñuy banderole suñuy kii dinañ taxaw suñu buntu koñ taxaw suñu buntu koñ yëkkati suñuy banderole dénoncé que ñun fii kenn lijjanti wuñu kenn lijjanti wuñu fii. dëgg la dogguma leen comme ni ngeen ko waxee yaakaar naa ne bii moo nekk deuxième événement buñ fiy def. ça c'est vrai. bii mooy deuxième événement buñ fiy événement bi def na ko fi mu réussir. deuxième événement bi mu doon bisub tey bi nga xam ne tey moom la war a jël tey ngir war fee teew. ça c'est vrai président Macky Sall mi nga xam ne tey moom moo nekk seen maire lan la leen apporter ci diggante un an bi nga xamante ni toog na ko ci gox dara apporter dara ñun gisuñu suñu bopp ci moom sa ñoo ko fal bi muy wër bi ay kii maire fii la ñëw kon bi doo daaw fi njëkk ñu defal ko porte maire yi ngay gis Macky Sall la ñu votel moom la ñu votel sa kenn faale wuñu wax li nga xam moo ñu metti sa pare nañu nag pare nañu bu ngoonee à à quinze dañuy mobiliser wu suñuy banderole taxaw buntu mitin ba taxaw suñuy banderole ne ñun boolewuñu si ñun Sandokos fii sam ñun ñii ñëpp Djiddah Thiaroye Kaw la ñuy voté ñii am na ñuy voté Médina Gounass mais ñun dañoo bëgg maire bi xam ne fii ñoo ko voteel ñoo ko fal looloo doon suñu mbébét tey tey tey jii ñu gis ne tey suñu yaay booy tey ñoom ñu ngi fi tey jii ñoom yan gàllankoor lañ fi gën a am ci ñi nga xamante ni parce que bu ñëwee jigéen jigéen daanaka moo yor kër tey góor day xëy dem wuti ji dépense daal di ñëw tey jeunesse yi nga xamante ni génération bi nga xam tey ñoom ñoo nekk tey ci biir secteur bi lan moo leen fi naqari ak li nga xamante ni maanaam chaque jour dañ koy jooytu te maire bi dafa gu leen maire bi canalisation mooy paye ñun problème boobu la am canalisation yaa ngi gis fii ndox mi si koñ bi lañ koy këpp xale yi ci la ñuy fo feebar yi di ñëw lépp di ñëw comprendre nga insécurité bi fi am fii ñun fii lumière tàqu fi insécurité moo fi am police baa ngi ne à zéro mètre bëgg dem lañ la fi ay boor booy saret ñëw ñun ñoo intervenir jàpp sàcc bi sa loolu sécurité boobu dafa war am fii maire bi daal la ñu bëgg mu gis gestuñu xam ne ñun si moom la ñu bokk muy Modou Gueye moom laay adressé sa pare nañu ngoon pour suñuy banderole teg ko wax li ñu metti yëpp incha allah si meeting bi. ci benn mu def fi deux meetings ci benn un an bi te mu war fee recevoir ki nga xam ne mooy président Macky Sall. waaw tey ji bu Macky Sall ji ñëwee fekk gox bi mel nii morgue bi mu toog ak léegi yéen tamit ngeen di dox tamit di def tamit seen ñaxtu est-ce que léegi lii doonul gàcce boo xamante ni instant bi morgue yi lii war na mën a toog pour xoolaat ay. gàcce la kon bi ni mu meloon depuis PDS ba léegi noonu la mel kon bi ni mu meloon dara changé wu ci rigole amu fi nu mu éclairage amu fi public. ñun ñu ngi ci insécurité comprendre nga ñun maire bi lañu ñu bëgg mu geesuñu wax ak ñun ñun konturuñu ko mais ni muy doxalee baaxul ni muy doxalee ñun boolewuñu si sa bi mu bëggee ay carte fii la ñëw ñu voteel ko Macky Sall la ñu waxal mu wax ak maire bi ñun ñu jàpp ci Sando Kousu day soo xoolee population bi fi ne jégg na dayoo sa ñëpp Macky Sall la àndal kon donc que nañ ñu geesu monsieur le maire Modou Gueye yow laay waxal nga geesuñu ñun Sandakou sonn nañu amuñu ñu dara ba nga faloo ba léegi déggu ñu la lijjanti woo ñu sa maire mosoo ñu fa convoqué suñ la wooyee téléphone sax dina répond pa voilà loolu lañ bëgg mu dakk maire bi ci koñ bi la dëkk lépp a war a jeex merci beaucoup. bonjour je salue tout le monde. Bon, si vous nous voyez aujourd'hui, bon, ce sont les jeunes de Sandakou qui sont réunis pour dénoncer le mots qui se passent au niveau du quartier. Comme vous le savez, ouais. depuis au début, on est là, on a prêté main à notre maire. Je veux, je veux, nommer le maire, M. Momodou Gueye. Ouais. depuis lors, on a eu des problèmes parce que après, être passé par ici, on a soulevé les mots de, notre, quartier. Mais depuis lors, on n'a pas vu de changement. Depuis qu'il est au magistère, bon, il n'est pas revenu pour voir les vrais problèmes de notre quartier. Sur ce, bon, aujourd'hui, nous sommes mobilisés plus que jamais déterminés pour dénoncer les problèmes de notre Comme vous le voyez, ici c'est une, zone tampon. Parfois on nous considère que nous sommes dans, la, zone de Mérine Goulans, alors que d'autres disent que nous sommes dans la zone de la commune de Guidé Tcharekao. Alors nous voulons savoir vraiment ce qui se passe, c'est quoi le problème. Parce que nous avons beaucoup de problèmes qui se posent par ici. Nous avons des problèmes de regard, nous avons des problèmes d'électrification. Comme vous le voyez il y et toujours. Par exemple, l'autre fois, il a des charretiers je, je, peux même dire agresser notre tante qui habite ici. Et nous dénonçons, vraiment cela. Ça doit pas se passer comme ça. Parce que nous, nous, faisons part, nous, nous, sommes des membres intégrantes de la commune de Guida Tiaroïkao. Comme mon successeur l'a tantôt dit, bon, nous voulons que cela se cesse. Parce qu'ici, il y a des événements qui se passent et nous ne sommes jamais invités. Comme vous le voyez, aussi, il a le président Macky qui doit se déplacer pour faire un et que nous avons voté pour, que, le, pour le président Macky Sall et, que pour, le, pour le maire Mamadou Gueye. Ouais, ouais, ouais. Il est venu, il s'est déplacé jusqu'ici. Il Bon, il a, il, a, il réuni toutes les informations, on a longtemps discuté, mais depuis lors, on n'a rien venant de, sa part. Nous voulons que cela cesse. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. waay waay waay waay waay waay waay waay waay di kaasal Sandikos gi ma dëkk ñun dañoo sonn dañoo sonn ndax ñun ñu si dara. dëgg ndax mitin bii fi am ñun yëguñu ko boolewuñu si dañ ne CFA CFA la ñu wax waxuñu Sandikos te ñun ñu ngi nekk si diggante caare ji day kaw ak diggante euh, gunaas mënuñoo xam ñu féete léegi nag benn maire moo fi mun a ñëw wax ñu ñun fii la ñu féete ñu xam fan la ñu féete buñ ne fii la Sandikos yem ci caaree ji day kaw ñu xam bu fekkee dañ ne gunaas fii lay yem ti caare ji day kaw ñu xam encore li ma gën a metti ñun amuñu tuurukaayu ndox tuurukaayu ndox amuñu ko ñun ñëpp ci mbedd yi la ñuy tuur te mbedd yi ñuy tuur toujours day andi ay coow ndax dangay tuur ndox mu dem ba si buntu kër jàmbur foos yi day fees del di walangaanti buntu kër jàmbur yi te boo waxee mu andi histoire te digganteeg dëkk nit ak sa dëkkandoo am na lu bëri loo xam ne da ko siy sóoraale ndax boo ne tey ndox mi du yegg si fii bu yàggee jàppante lay andi te ko jar dañoo bëgg ñu jàppale ñu ñun suñu jeunes yaa ngi xamuñu dara si meeting bi te ñun normalement suñu jeunes yi ñoo waroon a jiitu si meeting bi ñoo fi waroon a jiitu ñun yaay yi ñu ñëw topp seen ginnaaw nekk si jàpp si ñun dañoo bëgg a xam ne ñun Sandoukouse la ñu dëkk ndax Sandoukouse bi ci Sandoukouse bu njëkk ba suñu baay yi ñoo fi nekkoon yor ko mu rafet xuloo amul xeex amul ñu nekk fi mu rafet ñun nu bokk ndey bokk baay kon nag nañ ñu jàppale ñu dimbali ñu ngeen yàlla war a sóori ñu xam fan la ñu féetee dañ xam fu ñu bu woote jotee dañuy dem voté ji Macky Sall bi ñuy voté dañoo dem votel ko sànni ko suñuy carte kon nag Macky Sall ñu wax ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ñu jiital leen na Macky Sall ngela wax leen ne dem leen ngeen jàppale kàcce sandu course jeunes ya fa nekk jeunes yi ak géejaay jeunes ya fa nekk ñu xam fan la ñu féete maire yi ñu xam fan la ñu féete loolu mooy yoon wante bu voté jotee ñii dem école 6 ñii dem Gunaas moodul yoon du yoon ñun xamuñu dara waaw moom moom ñëwul benn jeune yëgu ko xale yi yëguñu ko loolu moo leen métti moo andi lii te dëggale yi nit ki li nga bokk te boolewuñ la si da lay métti il faut que mu metti la nit ki li nga bokk dañ la see war a bool waaye bu la si boolewul du neex si xol ndax ci la ñu bokk ndax ñun ñëpp ñoo bokk Macky Sall kon nag normalement war na bu ñu Macky Sall dee ñëw fii jeunes yi war nañ ko ndax ku si nekk da nga yëkkate woon sa carte dem sànnil Macky kon na ko xale yi yëg xale yi dañ loolu moo leen métti moo tax ñëpp di kaas loolu moo ñu métti leneen méttiwu ñëpp lu dul loolu ak canal nañu sarax ngir yàlla defal ñu canal tuurukaayu ndox chaque jour ñu kaas ko dem naa ba mairie Gounass kaas ko fa amul fu ma ko kaasul waaw béy di ba moo duggee nañu seet ñun fan la ñu féete ku nekk xam foo féete waaw te ñoom ñaar ñëpp ci Macky Sall lañu bu defee ku nekk xam foo féete bu kaatu jotee ñu dem sànni suñu kaat loolu mooy yoon waan boo xamul foo féete foo jëm Macky Sall ñaari mandat waaw mu ngi jëm ci ñetteel mandat. Mhm. ci li nga xamante ni waxu ko nit ñi waaye gars yi xam nañ ni fa la bëgg a jëm est-ce que yéen pare ngeen comme ni muy doxalee ni te neexu leen est-ce que pare ngeen 2024 ngi njëkkit waa carte joxal ko. ah dañuy seet daal ku ñu doy waaw. bu changement amee waaw. waaw bu changement amee waaw bu changement amee. dernier message bi. waaw. Baydi Ba Modou Gueye nañ ñu jàppale ñu xam fu ñu féete. ku nekk ñëw ne buntu kër gii la féete la yem ñu xam ne foofu la yem mu jeex loolu la. Bienvenue sur Salam Vision.